sëñ Ballou. combat Balla Boy Niang ay fan ñoo ci des. fan néew. boobu ba gaa ñaa ngi topp softaan. situation mm-hmm, dëgg la changé moom changé am na ci waa xam nga waxoon naa ne eh, kii di Boy Niang dafa toog ci lu dëgër dëgër eh, am na mu ko misaale woon ci na li wala fi di wax ne ku ku ñemee dañ laa déy donc moo waxoon ne moom am na ndey luñ ko déy moom ci wàllu mystique lu dalal xelam lool donte itam ki ko séqal. ñëpp xam nañu ko ci wàllu euh, mystique euh, bu dëgër dëgër ci euh, te itam yàgg naa jël lu nekk rek ci wàllu làmb ji waaw waaye foofu li mu ci joxe rek mooy ni nga ko waxee effectivement am na lu ci leneen lu ci bees ko defee nag li ma ci gis muy solution li ma ci xam li ma ci xam te mën koo wax mooy kooku nga yor xam ne moo yor waruwaayu fas bu weex bi. kim Balla Gaye de kim ko séqal pour mu mën ko contour carré faw ma wut fasu weex ni moom. donc voilà loolu rek moo ko ci moo ko fas wu weex ni moom donc comme comme Balla Gaye 2 donc loolu moo ko ci dafa am ci wàllu mystique la waaw du du du bëgg jënd fas rek jënd ko yar yow noonu di di yefal déedéet ci wàllu mystique la lu doy doy waar donc moom itam na def noonu rek donc voilà bu loolu amee rek yàlla dina ko mën a dimbale bu baax a baax dégg nga incha allahu taala Uh-huh. tey moom dañuy war a xam-xam. Uh-huh. nee naa sëñ Fall ko sopp yëpp. Uh-huh. ginnaaw ñaan yàlla ak faj aajo jàmm ci ndimbalu yàlla. ci xam-xam. lañu ko gën a naan. waaw tey nag nga tegal ñu yàlla ay jumtukaay. waaw fas yéenee décortiquer lu bari. ci xam-xam. Mm-hmm. waaw li ñu bëggoon a wane de mooy musallas bi nga xam ne ñu bari ñu ngi koy dégg. Mm-hmm. ñu bari itam di sàkk ñu leeral ko muy musallasul xasaal yi. Mm-hmm. di musallas boo xam ne musallas bu am solo la. wàcc na ci yam ci ay diyaanaat yu bari moo waxee diyaanaat yi mooy mboolem diine yi nga xam ne yàlla mos na ci wàccee yu yonantu rek mën nga ne musallas bi jaar na foofu kon gis nga ne musallas bi fi mu jógee dafa sori waaw waaye loolu lépp xëy na détail bi duñ du waxtu duñu ko may duñu ko may waaye ba bi ci li am solo rek mooy imaamu xasaali bi mu ciy jot li tax ñu tuddee ko ko moom foofu laa bëgg ñëw su ko defee ñu door a dugg dëgg-dëgg ci jëmmi musallas bi mm-hmm. ak solo si mu am boroom xam-xam wax nañ ne bépp aajo bu nit am rek ci àddina ak aaje bu mën di doon rek ci biir musalas bi am na ci bunt bu mu ko mën a jaaree pour régler ajo boobu ci musal musalasul xasaal dafa am duggin yu baree bari am na lu ma 36 bunt duggin kon da ngay gis na kon am na duggin yu baree bari duggin wu ne ak aajo ba ko tax a jóg mm-hmm. dégg nga benn duggin it mën naa mën naa mën nañ ko mën naa mën naa faj ajo yu bare dégg nga dégg nga loolu lañ bëgg expliquer li ma bëgg a wane fii mooy xam nga bi ci imaamu xasaali di jot donc formule bi moo ci nekkoon bi bii formule la amoon donc lii am na ñu ko xàmmee bi ci imaamu xasaali di jot moom lii la ci fekkoon lu mel ni plus ni saaru croix bi moo ci nekkoon bi ci imaamu xasaali di jot léegi nag imaamu xasaali ku ne xam na ne théologien la woon nitu yàlla la woon ku mag koo xam ne ci wàllu jaamu yàlla ak wéetal ko surtout ci wàllu xam-xam ba bu ñuy boole bu ñu lim philosophie sax ci lañ koy boole jàng am xam nañu ko Euh, muy fasl fasl bu imaamu xasaali man xaju at at naqd wa wa wa léegi moom lii la ko fekkoon léegi moom kon am na lu mu ci yokk ndax musallas bi buñ ko rëddee di nga gis ne melut nii dégg nga mu ci yokk mooy lii mooy kaat yi yeneen bunt yi bunt yi mu yokk ci ñëw tudd tabia tabia moom ngeen di wax ci tubaab nature donc kon moom kaat yi la ci yokk muy baytu naar ak baytu turaab baytul ma ak baytul al al nu koy tudda alma iyu a naar ak ak baytu nuñ koy tuddee tur naar laa wax fii waxal ma wax turaab wax hawa bi mooy baytul hawa bi mooy ngelaw donc kon ñeenti koñ yooyu moom moo ko ci yokk ku na xam ne it euh, dafa euh, duggoon xalwatu lu yàgg di ñaan borom bi ba borom bi may ko fatxu ci lii moom moo ko ci yokk wax nañu ne am na ñeneen benn beneen nett li bu wax ne maanaam bi mu bindee lii def ci aajoom ji di wérd booba kéwél moo doon yitteem kéwél dañuy wax ne kéwél gi dafa daw ba daanu ci biir ci biir xaatim bi mm. kon loolu wane ne solo si ak doole si nga xam ne musalas bi am na ko donc kon loolu benn laaj léegi nag duggin wi ci nit ñi gën a miin mooy duggin wii mooy dugginu kursi yu lañ koy wax dugginu kursi yu nga xam ne baytu kursi bi ngay njëkk a dugal mm-hmm. boo dugalee baytul kursi bi nga dugal baytu naari bi mm-hmm. ba dugalee baytu naari bi nga dugal baytul xalam boo dugalee xalam nga dugal baytu turaab d'accord nga dugal baytu turaab boo dugalee turaab nga dugal baytul xutbu bi moo tudd xutbu boo dugalee bu nga dugal baytul xawaa gi bi mooy tudd xawaa soo dugalee xawaa nga dugal baytul euh, xalam bi moo nekk nii d'accord dégg boo paree nga dugal baytul ma bi mooy maa o bi ndox boo paree nga tëjee ko alxars dégg nga baytu bi moom moo tudd alxars donc voilà léegi su ko defee mu jeex mais li ci yéeme mooy jëlal sa machine ma ma ma wan la yéeme gi nga xam ne moo nekk ci ci mustalasul xasaali ak boo bëggee xam itam même xaatim bi nga dugal baax na wala baaxul maanaam damm na wala dammul eh, jëlal 2 plus 7 2 plus 7 7 2 plus 7 lu mu lay jox 9 9 9 plus 6 lu mu lay jox. 9 la lay jox. donc kon da ngay gis ne fii li mu la jox moom mooy 15 bi nga wàccee côté bi li mu la jox mooy. 15 la lay jox. Mm-hmm. effacé loolu nga def 9 plus 5. 9 plus plus plus 1. Mm-hmm. jox la 15 encore. d'accord mm-hmm. jëlaatal effacé nga def 4. plus 3. plus 3. plus lay jox. 15 la jox ba la lay jox encore donc kon xaatim bi dammuwul eh. maanaam foo wàccee rek 15 la lay jox bu même boo defoon nii 15 la lay jox boo defee nii noo def rek 15 la lay jox. waru ko war waru ko waru ko ko ëpp voilà donc foofu ngay xamee ne kon ndeke xaatim bi dammuwul. Hmm. parce que xaatim bu dammu danger bi mooy boo ko jëfandikoo da lay tëj. Hmm. dañuy wax ne benn xaatim bu yàq junne yu baax mënu ko defar. donc loolu ñu di ci bàyyi xel léegi kees bii lu mu jàpp quinze moo jàpp xawaa sunu maam sunu maam xawaa xawaa ñetti yoon ñetti quinze mooy quarante cinq mu jàpp aadama mhm. d'accord mhm. léegi miim ngi quarante la mhm. del gi quatre alif gi un dégg nga 40 plus 4 44. 45 la lay donc ñetti ah ñetti xawaa moo lay jox benn. benn 45 muy muy aadama kon ñetti jigéen moo lay jox benn góor laa bëgg a wax foofu donc gis nga ko bépp xaatim boo bëggee xam damm na wala dammuwul rek boo ko jaaree ci yoon bi normalement dil lii lay tuddee dil yi boo leen wàccee ñoom ñëppay tolloo warul ëpp warul yees donc lii mooy benn duggin la ci ci duggin yi gën a miin voilà léegi nag mu des nag léegi naka lañ koy jëfandikoo léegi bayt bii moom moo tudd baytil kursi yi mm-hmm. su fekkoon ne man wërsëg rek moom laa ciy teewoo nga xam ne wërsëg rek. ubbeeku ak am-am ubbeeku am waxuma nag am mos-mos yii de am alal bu dul jeex laa wax. Mm-hmm. nekk milliardaire wala millionnaire. Mm-hmm. su boobaa am na fu ma mën a jaaree fan laa mën a jaaree. su boobaa damay jël kursi bi ak naari bi ak xutbi bi loolu mooy yoon bi mooy ñetti kër yooyu laa ciy soxla. Mm-hmm. su fekkoon damaa bëgg nekk ku riis. ci wàllu am-am ñu dégg ma ci am. wala boog ma bëgg a taxaw nit ci wet googu nit ñi dégg ko ci am-am. su boobaa yoon bii laa koy jaaree. par exemple xam nga lii dama joxe yoon rek mais chiffre yi mën na ëpp lii mhm. par exemple fii bu fekkoon dafa amoon deux cent 1230 bu mu amoon fii 1230 fii mu am 1232 1231 par exemple mhm. fii ma am cent trent cinq exemple lay joxe mhm. su boobaa dañ ne ma boo ñëwee fii da ngay xool ban chiffre moo ëpp boo ñëwee 1230 laa waxoon 1230 ban chiffre moo ëpp 1000. waaw 1000 moo ci ëpp. 1000 moo ci ëpp. su boobaa 1000 bi rek laay wird 1000 bi rek laay siikar li ci des dama koy dagg wàcc du ma ko laal. Hmm. su ma ñëwee ci baytu naar bi su boobaa dañ ma dañ maa jëlal chiffre bi gën a digg doomu bi nga xam ne gënul ndaw ëppul. Hmm. par exemple ma ñëw ci mille 1230. Hmm. kon 1000 moo ëpp 200 moo ci mooy digg doomu. kon 200 laay 200 laay jël. bu may ci xutbu bi baytul xutbu bi mooy bii ci digg bi ma fekk fi 1235 su boobaa dañ naan ma jël lépp wird ko lépp li ci nekk lépp donc loolu. aw aw ah, ah li indi li li indi loolu mooy yow li la tax a jóg mooy am-am la. te mu musalas bi dañ niñ ko jàngale ci xam-xam dañ naan bu fekkee ne dangaa bëgg nekk million milliardaire maanaam ku bari alal su boobaa kon yoon bii ngay jaaree hmm. donc voilà loolu moo tax ma ne la. ça dépend ak li nga ciy soxla bokk ak bu fekkoon da bëgg fal nit. dégg nga ci mu jiite dara. wàllu wàllu wàllu. wilaya wala wala wilaya fal nit yëgati nit wala nga bëgg a wàccee nit dégg nga wala nga bëgg a sa noon wala nga bëgg fay wax wala nga bëgg a noob lenn lu ci nekk am na. yoon ah, yoon booy jaar am na ci yoon ci ci bi fii ma wax la par exemple xam nga lii exemple la laa doon joxe defe naa ñi ñiy déglu daañ ko xam duñ ko mën a expliquer ba mu leer waaye ba ba mu leer niñ ko bëggee waaye pour ñu xam na noonu la demee ma ma wan la beneen beneen duggiin euh, ci même mu salasul xasaali bi am na beneen duggiin donc boo xam ne mënees na koo duggee bii ma lay bëgg wax nag moom bu yéeme la moo tudd mu salasu tabia maanaam mu salas buy waaw tabia bu yéeme la bii ma lay bëgg a wax nii mm-hmm. bu yéeme yéeme la ci aar nit ki aar surtout aar nit. aar nit maanaam boo ko defee li juróom-benn weer yooyu moom mën ngaa koo garantir ne du ci am coow du dugg koso ak lu mu mën di def lu mu garaaw garaaw même bu fekkoon ne dafa dafa nga baal ma ci wax bi dafa rey nit sax. déedéet ci ci kenn du ko def dara donc musallas bu doy waar la. bii ma lay bëgg a wax nii par exemple boo defee nii. xamal la doy gi mu doy waar rek donc voilà yow léegi buur jox ma chiffre bu la neex man jox naa la chiffre sept Duudu aussi jox ma chiffre joxewaatal benn douze douze nga joxe joxee 1 ba 9 rek moom mooy gën a kii waa benn joxe ci benn rek chiffre 8 hmm. Doudou 3 donc voilà hmm. léegi ñu xool hmm. léegi bu ma defee 3 plus 9 jëlal sa machine 3 lay joxe set plus 8 7 plus 8 15 d'accord 7 plus 8. 15 la joxe. léegi day ñëwaat fii 7 plus 3. 10 10 ah. 7 plus 3 10. d'accord 9 euh, plus 8. 9 plus 8 17 d'accord hmm? lii lañu amoon. waaw lii lañu amoon. waaw léegi 7 plus 2. Euh, plus 12 to plus 12 waaw. 7 plus 12 19 lay doon. 19 plus 8. 19 plus 8 19 plus 8 égale 27. 27. waaw 25 nga waxoon yoon bee moo tax man am na fu ñu juumee waaw. waaw 27 laa waxoon. waaw donc 17 euh, plus 10. 27 moom tamit. 27. waaw d' accord 3 plus 15. plus 9 15 20. 3 plus mhm. plus 9 18 te pourtant yi yéen na ma jox chiffres yi. te kenn yëgul ci ak sa moroom gis nga ko te moo bokk résultat bu ñu joxe donc lii moo tudd musalasu tabia musalas bu yéeme la musalasu at tabiati ci wàllu woo ma wax maanaam wàllu aar nit ki ak yëkkati ko. moom surtout protéger ko ba nga xam ne. waaw chiffre yi yéen yéen a joxe chiffre xam nga yéen a ko joxe te moo bokk résultat bu mu joxe. Mhm. donc loolu mooy mooy waxe mooy wane doy waar gi mu doy waar. xam nga yéen kenn yëguwul ci ak sa morom. ngeen joxe chiffre yi biñ ko wàccee mu doon benn. léegi nag même chose lay aare nit ki ba nga xam ne lu mu mën di dugg santuñ kenn nag mu dugg ci ci ci ci ci safaan waaye lu mu mën di dugg boo ko ko defee lay jaaree ko ci yoon bi moom fii ak 6 mois. lu koy aar lay doon bu soobee yàlla maanaam lu mu dugg da ciy génn te facilitateur la maanaam lépp loo xam ne dafa jog di ko di ko wuti ak lu mu mën di doon loolu dafay jàpp ni day yomb ci moom donc bi beneen duggin la ñu koy tuddee musala su tabi léegi nag aajo bi lay dugal fii rapport bi. soxla si soxla si donc lii moo tax ñu bàyyi ko ci loolu mooy solo si su boobaa fii lay dugal aajo bi nga xam ne moo ko tax a jóg dégg nga. xiyaas yi donc voilà xaaral ma ñëw ci sax waaw am na beneen musalas bu ñuy tuddee kunti xiyaas yi musalas bu doy waar la moom it ah. mhm. boo xam ne euh, selo nit ki aajo bi mu bëgg rek moom itam day mën a jër waaw voilà mu xam nga loolu li koy wane mooy xam-xam euh, ginnaaw bu ko boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko laltaay jiital ko mhm. yeneen borom xam-xam yi ñëw seen ginnaaw ku ci nekk da ciy liggéey am ci yitte ba def ci effort su ko defee loolu dañ la koy dañ la koy dàkkantelee mu ngi mel ni musalas bii rek imaamu xasaal yi moomul ko nee naa la fi la ko fekk diyaanaat yi jiitu yëpp daan nañ ko jëfandikoo bu mu waxee diyaanaat yi mooy mboolem diine yi nga xam ne yàlla mos na cee wàcce yonantu rek waaye gis nga ko moom effort boobu mu def ci ba yàlla defal ko ci fathu mu créé ci yokk ci daal lu ci lu ci lu ci nekkuloon loolu moo tax ñu tuddee ko ko même soo itam mu salasul kunti xiyaas yi moom itam noonu la demee di musalas bu doy waar moom it hmm? Hmm. kuntiyu xiyaas yi. ndax man baat boobu ci yow laa koy déggee musalasul. kuntiyu xiyaas waar la. damay des nag sëñ daan expliquer. waaw oralement waaw waaw waaw waaw dama leen mm-hmm. lu wax xam mm-hmm, dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la donc musalasul kunti xiyaas yi mooy bii musalas nga xam ne moom itam beneen duggin la am donc voilà surtout ci wàllu nopp dañ koy ci jëfandikoo lu bari ah. nopp aajo nit ki wala nopp nit. nopp nit ak ci wàllu bëggante daal. Mm-hmm. wala itam noot mooy tasxiir nit ki mu topp la te du ko saña du ko saña bañ. waaw loolu itam dañ ko koy jëfandikoo donc. Euh, ci wàllu amour lay dox. donc voilà ak noot nopp ak noot yëpp da ciy dox waaw donc voilà doy day bu doy waar moom itam dégg nga xam nga sànq wane woon naa boo xam ne course yu lay duggee mm-hmm. bu dee kuntu yu xiyaas yi naar yu lay duggee buntub naar yu lay duggee buntub sawara bi donc voilà par exemple def naa foofu vingt mu def quarante ma def soixante ma def quatre vingt ma def champ fii par exemple mën naa def mille mille huit cent quarante fii ma def mille huit cent soixante mille huit cent par exemple quatre-vingt donc voilà. gis nga ba ci bi ci digg bi danga koy bàyyi. léegi bu fekkoon da nga koy jëfandikoo léegi ci wàllu noob nag ki ngay noob la touram di nekk ci ci suuf ci suuf. ci ci digg bi waaw laa jub la wax ki ngay noob turam mooy nekk ci biir dégg nga su boobaa nag am na am na ñaan gu muy àndal ñaan googu boo wirdo turu yàlla wi ba noppi yi mi turu yàlla wi muy àndal bu ñu koy composé ba noppi foofu ngay soxlaawee ñaan gi waaye itam foofu ngay soxlaawee turu kii nooblu ki nga xam dafay nooblu mais fii moom en attendant turu kii ñi noob rek moom ngay dugal ci biir donc li benn benn duggin la ci maanaam benn yoon la ci boo xam ne ci dugginu euh, musala sukkunti xiyaas yi lii mooy duggin bi moom waaye bii benn benn yoon la ci faj aajo xam nga lii ci wàllu noob laa ko dagg nii par exemple mën nga ko dagg ci wàllu tasxiir nit maanaam boo bëggoon nit ki tasxiir ko ba mu déggal la ba mu topp la ci loo xam ne xëy na du ko sañ a bañ ba loo ko sant ak ba loo bëgg ci moom itam mu def ko su boobaa itam mën nga koo jaaree ci yoon bi waaye itam su boobaa la ciy gën a jàppandi rek mooy nga jëfandikoo alawee xànjar alawee xànjar donc voilà nga bindi ci xaatim bi boo ko waree wird nga nga teg ko ci kaw donc voilà boo ko waree wird waaw boo ko waree wird nga teg ko ci ci xal yi nga wird ko donc loolu mooy solo si uh-huh. bu baax baax ah, bu baax a baax bu baax a baax waaye surtout ci musalas bii ñu doon wax uh-huh. musalasu tabian boobu ma doon wax uh-huh. ci wàllu fay wax am na bu ma jàll sànq mooy musalasu tabian fay coow des na ko ci jaare nit ku def lu lu doy waar te waxoon naa la xam nga day aar nit ci noonu mën nga ko cee jaaree maa boo bindee xaatim bi ba noppi da ngay xool selon coow li ni mu toll ndax coow lu yem la wala lu digguloomu wala coow lu rëy rëy bu dee coow lu ndaw la moom mën nga wut béy rek boo defaree xaatim ba noppi nga nga lewatal béy bi saraxe ko léegi ñu béy bi da ngay dagg làmmiñ bi génnee ko nga nga lem bi dugal ko ci biir mais booy dugalaat làmmiñ bi da nga koy inversé maanaam làmmiñ bu féete woon biir mooy féetee biti cat bi féete woon biti mooy féetee biir nga takk ko gas ba mu xóot nga suul ko def wirde yi muy àndal feeg ba woowu jox jógaatul na mbee maanaam coow loolu kenn dootu ko tudd ci làmmiñ ba àddina di tukki donc voilà loolu lu jeex na leçon laa wax. Mm-hmm, dëgg la waaw. Mm-hmm. mooy mm-hmm, allah bu soobee yàlla. suñu sopp sa waxtaan. Mhm. mooy xam-xam bi nga mhm. ci développé. Mhm. ba gaa xam ne vraiment kii ñu ko seqal te am ci moom yaakaar. di ñaan ci moom ak di ko diis dëgg la wallaay lekk la wallaay ndeysaan. ku leen di dimbali ci seen i aajo. dëgg la wallaay ndeysaan dëgg la wallaay wallaay ndeysaan dëgg la wallaay ndeysaan dëgg la wallaay. dëgg la wallaay ndeysaan dëgg la am am waaw mu ngoog li ñu tàggoo de mooy rek di delluwaat sant yàlla ak di leen gërëm bu baax xam naa temps bi du ci xaj sax waaye ñu bàyyi ko bu beneen rek ba ñu bëggoon musalasul wilaaya bu beneenee xëy na bu ñëwee jublu ci ak yeneen mu musalas yu dul jeex ba ci xaatim Suleymaan waaw donc voilà am na ñu am nañu possibilité lu bare bari leeral ko incha allahu taala e, ngir nit ñi xam ko lii nag ñuy def théorie la tudd téewari waaw ah, lii moo tudd théorie waaw. <laughs> waaw mu ngoog voilà lii mooy théorie voilà donc lii mooy théorie. léegi su ko defee li am solo rek mooy képp koo xam ne benn ci aaju yi ñu tudd rek doon na yitteem rek incha allahu bu ñu ci waree jëflante rek loolee yëkkati ko incha allah xolam dina ci dina ci seet dina ci am satisfaction donc loolu rek mooy solo si ñi di ko wane donc voilà ndax day compliqué compliqué bu nga xam ne da ciy am yooyu nit mën na koo defal boppam mm. xëy na daañ ci ñëw mayee ko waaye da ciy am yooyu comme mbirum xaatilim nit du ko mën a defal boppam ndax bu ko nit ki bëggee defal boppam mën na ci juum bu juumee rek safaan lay indi ay safaan lay indi safaan lay indi donc voilà maa ngi bëggoon sax leeral ci nit ñi daggee eh, nu mu tudd rawxaan ci musalas boobu ma doon wax da ngay xool de kër gi nga bëgg a daggal rawxaan par exemple fekkee kër gi dafa nekk 1330 su boobaa da ngay jël limu bisi na ci at mi muy 300 300 moom ngay jël wala 360 da ngay jëlal ma trent rek jëlal ma 30 fois 12 lu mu lay jox rek nga xool. 30 fois 12. waaw. 12. 360. 360 yooyu laa soxla fois ko 4. fois 1440. 1440 gis nga 1440 yii bu fekkoon damaa soxla baytul xawa ak yi kese kese nga xam ne fal nit lay lay ci lay ci maanaam yëkkati nit ci wàllu am-am la ma gis ne baytul xawa bi lii moo ci nekk 1340 par exemple. 1440. 1000. waaw chiffre 1440 la génn. waaw léegi te kër gi laa soxla daggal rawaxaan mm-hmm. kon da jël lii. boole kook lii jëlal 1440 yooyu nga amoon. waaw nga pilis ci 1340 da ngay pilis. plus 1300. 1300. waaw. cent quatre-vingts. deux mille. sept cent quatre-vingts. deux mille sept cent wàññi ci wàññi ci waaw. lu mu lay jox. 2738. 2000. 738. 2000. 738. léegi su boobaa dañ naan la boo dee boo dee dagg rawaxaan bi boo ko dee daggal rawaxaan comme yàgg naa ko expliqué ci wax noonu oralement da ngay njëkkee chiffre bi gën a ndaw ban moo gën a ndaw. 8 bi euh, gën a ndaw. non 3000. 2000. 2000 gënul ndaw 2000 2000 la moo tax. ah ok ok 2738. 38 8 moo gën a ndaw da ngay njëkk jël 8. Mm. lu ci topp. 30. trent 30. 2738. 30 nga wax ah. Mm-hmm. ta ya hmm? ka nga wax muy laama ah? muy laam ak lan deux mille sept cent nga wax ah sept cent ah donc voilà hmm, sept cent laa wax hmm, balaa maa juum cent cent trois cent quatre cent cinq cent six cent 700 d'accord léegi lii lan la 2000 su ko defee ma def siin bi ñaari yoon d'accord d'accord léegi mbiccel ko mbiccel mooy lii yaa ilu gi laa ci yokk yaa ilu mooy santu rawxaan bi waaw su boobaa mu jox ma <laughs> hal sa yaa ilu rawxaan lay doon rawxaan la donc day day yokk puissance day yokk doole euh, xaatim bi ba nga xam ne day day gaaw aajo bi day gaaw a faju boo ko boo doon wér di neuf jours donc boo dawalee mën naa balaa juróom-ñaari fan rek aajo boobu faju donc voilà <laughs> loolu mooy solo si. <laughs> sant bu di leen voilà voilà jërëjëf jërëjëf tubaarikàlla. lu mel de mooy dellu sant yàlla rek ñaan yàlla ni ñu koy baaxoo di ñaanee rek yàlla def jàmm dal def dal itam ci réew mi waaye itam def ko ci bitim réew. wuy jaaxle yi ak lu mën di sabab seen jaaxle ñoo ngi ñaan yàlla mu tegg leen seen jaaxle incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.